want. Jene sen sen, Rumi Venkat TV. jëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen ñu koy topp ci site internet bii di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy do rek Mollah Morgan ñu gën koo xam ci turu Mouhamadou Niass daal di nañu koy daal di nañu koy junj rek ab mandat d'arrêt international bu ñu moytule li ko waral nag du leen rek lu dul dafay fësal ay xibaar yoo xamante ne rek dañoo jàpp ne nag secret la war a doon jëmale ko nag ci nguur gi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy réew bu Canada mu nekk ay kaddu yoo xamante ne rek kii Molan ba mu ko dal di xam le nag euh, secret d'état bi nga xamante ne rek ci atum 2021 la ci diggante ne moom moo fi nekk premier ministre ak ministre bu ñu dénk nag wàllum éducation bu réew mi mu nekk rapport boo xamante ne rek dañ leen ca épinglé woon waaye nag li waral rek ñu daal di koy bëgg a jébbal ab mandat d'arrêt international ne nañ nag la muy wax maîtriser wu ko ba noppi rek la muy wax nag dara du ca dëgg moo waral rek ñu bëgg ko dóor ab mandat d'arrêt international ginnaaw rek bu mu yëkkatee kàddu que ne dafa am convention bi dox ci diggante état bu Sénégal ak réew bi di Canada maanaam daal ak état canadien loolu nag moom moo waral rek ñu bëgg ko euh, yóbbu fi nga xamante ne rek moom mooy ca ab mandat d'arrêt international ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci wàllum kaaraange ak intimidation ndax nag ñi nga xamante rek ñoom la ñu gis ñu àndal kii di Omar eh, Diagne ci seen jëmmi bopp ci diirub 24 heures ngi nii daal dinañu lancé rek ab plateforme boo xamante ne politique la opposition bi ci jëmmi boppam nag dañoo filmé ñaari camion yoo xamante rek ay camion gendarmerie lañ ñu daal di leen gis nag ñu daal di gaare fi nga xamante ne soriwul lool que Cheikh Omar Anne waaye nag li nga xamante ne rek moom moo daal di jaaxal ni ñi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo àndoon nag ak ancien ministre de l' éducation ba woon bu ñu sukkandikoo nag ci rek daal di ñëwee nag nag ci anam bu nu mel waaye nag daal di ñëw rek ngir eh, gàccaal nit waaye ne nañ ab opération sécurisation la loolu moo waral nag daal di doxalee noonu waaye comme nañu ko xamlee rek ne ñaari camion yi gendarme yi yëpp nekkoon nañ ca boobule bërëb waaye ginnaaw bu ñu ñëwee nag gis nañ benn bi dem beneen bi ci des nag ma nga fa woon ñu gis ci ay gendarme ba noppi signal bi nga xamante ne daal di koy am moo di ab opération de sécurisation rek eh, lañ fay eh, daal di amal ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy gendarme yi daal di nañu wane nag opération de sécurisation bi nga xamante xamante rek euh, dañoo daal di ñëw pour surveiller responsable ak organisation yi nga xamante ne rek nouvelle responsabilité yi ñu ngi koy def ñu njort na rek mbir mi euh, moo nekk euh, gullet ci yooyu les bërëb mu ñeel nag affaire judiciaire ak li nga xamante ne rek xëy na nag moom la ñuy xaarandi fii ay fan jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mun a am yeneen xibaar